asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa wax ju gàtt rek la doon. Mhm. benn séeré boo xam ne dama koy def ngir jëm yàlla ak yonent bi ak sëñ Tuubaa waaye ngir séeré dëgg la nga ci xam muy alxaaji Babacar Kebe di Njuga di jëmm joo xam ne jullit la taalibi la yàlla defoon ko mu jamono teg Seex Abdu Lahat ñu doon liggéey Sëñ Tuubaa njubati jëmm joo xam nag jëfam kenn mënu koo far ci dëkk bi kenn mënu koo far ci yoonu murid ndax jëfam dafa àgg fu ne day jëmam doon jëf joo xam ne day jëf rek Sëñ Tuubaa tax sëñ Basiru ne woon sëñ waaye nam jàppe sëñ Basiru la jàppoon njabootu Sëñ Tuubaa gépp ba kenn ku ne liggéeyal bi la dëkk bii ñu nekk nag tali njuga am na fi forage su njuga am na fi quartier bu am na fa kër ngir bëgg sëñ Tuubaa doomi sëñ Tuubaa ju ne liggéeyal na liggéey bi wér ci sens bi mooy itam bi mu wàcc liggéey sëñ Abdou Xaadir la ko jullee waaye sëñ Abdou Lahad moo ko def témoin sax hmm. nga xam ne dañuy sëñ Tuubaa dafa waxoon ne maam Thierno ma koy tudd fi ngay demee ba ngay delsi koo fa tey jéggal nañ ko kooku comme seere war xam ne am na nga njéggal sëñ Abdou Lahad nekkoon jëw nañ tubaat Tuubaa teemay ko kon comme comme def teema tam wóor na sëñ Tuubaa jéggal nañ ko daana wax ne famille rooti xawma ko waaye fi muy sotti moom leer na nañ ñi leew te ñoom dañ daan segg xaalis bi ñuy lëg bi ñuy def ci sëñ Tuubaa du xaalis bu ñu def rek def ko ci jumaa ji te xaalis su njóge mi ci biir jumaa ji ci yokk bi ci ci ci ci biir jumaa ji moom moo naal bi ñu defal tey yi ay nisere moom si ñebe daal di accès juróom-ñaari soor yi moo ko bëggoon def ba demoon na palaat man teg naa ci sama bët si ñebe daal di accès daal di ko yokk xamoon na ne liggéeyu keneen la kon bi ko sëñ Cheikh Mat lay liggéey tam njóge am na ca ak pay am na ca yool ndax moo ko desoon bëggoon ko def. kon kooku moom day mel ni ab liggéeyam jaxasoo naa liggéey Sëñ Tuubaa gannaaw saal da nga ko xob di ko def liggéey Sëñ Tuubaa ba loo yéene woon def te defoo ku nekk Sëñ Tuubaa àggale la ko kon day mel ni sa jëf àgg na fa nga bëgg def kon jóge mën nañoo wax ne jullit la mën nañoo wax ne taalibe la mën nañoo wax ne murid sax saadix la 1972 bi ñuy ubbi forage bi wala bi ñuy ubbi marché bi ñuy ubbi forage bi ak laxasaay la takk solu martoom sol mbaxaram Baay Faal kenn xam ne murid la moo ko njëkk a manifesté jamono sew kenn mënu ko man ñëwu ko manifesté ba ko Senghor gisee dafa tiit ni eh njuga ndeke mooy nga kon kooku kenn nattable du murid gannaaw chrétien ñoo xam ne murid la ba di ko manifesté te boobu kenn mënewu koon kon mënees naa rafet njort ci moom mënees naa euh, am yaqin ci moom tamit nit liggéeyam àgg ndax képp ko xam ne sëñ Tuubaa nag mën naa gis alal def ko ci liggéey sëñ Tuubaa bi xam na ko am na xaalis yoo xam ne sëñ bi daw ko jëfandikoo sëñ Saliou daal ko jëfandikoo ñoo xam ñoom dañ daan wax ne képp ku sa baay dëkkee woon gas soo mënta suul itam xam na ngay jëfandikoo moo tax ba liggéey seen i liggéey dañ koy segg seen i liggéey kenn wul fa mu ne sax kenn wul ko dindi hmm? ndax eh, li ñuy sàmmanteel nag jamono indi lu gën a bees indi lu gën a moderne indi lu gën a rafet moo tax ñuy dindi waaye du teg ak bon a tax ñuy dindi wala yàq wala ñàkk a naw loo boobu ndax lépp xaalis bu addee yoo xam ne sëñ Tuubaa sëñ Blaat da ko gërëmloo sëñ Saliou gërëmloo ku fi ñëw da ko war a gërëmloo. dëkk la waaye addi yoo xam ne nag ñooñu gërëmloo itam ku ko fab def ko ci ko gërëmloo. dëgg loolu dafa leer nañ saxla ba bi ñu koy laaj asaka moo nekk xamaamatul masjid ndax amoon diine di julli ci jàkka ji di ñaan la yonte bi sallallahu alayhi wasallam may ko ñaan ko xaalis yonte bi da ko gàntal ba mujj mu ñaal ko mu am ak jur ba jur gi bare bare koo xam ne xayitul moom ci dëkk bi ba ñëwatul jumaa yonte bi ko laaj ñu ne ko jur sawaj da ñaan nga ko ñaan moo dal ba dem léegi jur gi daa bari ba ba gën dëkk bi dem yonent bi yónnee di ko laaj asaka mu ne ko laa ndax beew laa sakkaate fi islam bi ko yàlla giddee itam mu bëgg mu bëgg a indiwaat ko ndax gannaaw gannaaw yonent bi Babacar laaj na ko ko Omar laaj na ko ko mu gàntal jamono Ousmane xaw ma jamono Ali la la ko bëgg a indiwaat ñu lànk ni ko alal yoo xam ne yonent bi nangu ko woon a jël xulafa euh, arbaa nangu ñenn ci ñoom nangul ko yët kon duñ ko jël hmm. waaye yàlla na ci yàlla musal lii nag dama ko wax ngir jëm yàlla waxuma ko ngir tontu waxuma ko ngir euh, amoon na xar dama ko war a te yàlla tax dëgg xam naa njóge bu baax ndax doomi sëñ tuwaay yi su sëñ Blanc da ko daan digal muy def sax su ma saa andi sëñ Blanc oto sëñ Blanc du ko war dane ko bala maa am bala ma ko war a war nag njaboot sëñ tuwaay yëpp daj kon liggéeyam daj na fépp jëfam daj na fépp talu daj fépp la ñëpp soxla kon talibe Bàmba piir la bàmb yi la moom bàmb la gëm waaw këréwut boo am këré la muy def mën na ko jëf dara minam rek hmm? waaye ñëpp a kon nag ku bëgg melaw murid sadiq noonu ngay def bañ a hmm? te xam ne defe ne sëñ Tuubaa ko def